Yaay Boy way bi yaa ko moom cette chanson t'est dédiée de la part de tous tes enfants et petits-enfants. On tout notre amour. Ah, pour ce spécial, j'en profite pour dire à ma mère, à ma lovely mom, euh, euh bonne des mamans et à tout le monde, bonne des mamans. Hey, uh, ma uh, wife. ñu ngi leen souhaiter des mères. waaw kooku ñu ngi koy jox sunu yaay yëpp à tous les moments du monde spécial maa ngi koy jox sama yaay Thérèse Thium yaay bi nga xam ni néew ma maa gën kenn yaay mais kenn gënu ma yaay I love you mami. Happy yu mi <laughs> eh, happy Mother's Day maa way kuro ñu ngi wish happy Mother's Day maam yëpp ci monde bi ak ñi nga xam ne nekkuñu fi